jërë ngeen jëf euh, mbokk internet yi ñaari fan si weeru juillet tombeek euh, dimanche la sa gën a fees euh, ñu koy waxtaane rek jamono ji rek si internet bi mu di nag génn kooke di Adji Raby Sarr ginnaaw rek bu mu génn si beneen facette ñu daat koy ràññee lool moom kooke di Adji Sarr nekk ab ex-masseuse bu xamante ne général daan nay ràññeeku lool si Sénégal bokk na ñi gën a siiw jamono jile si ay massage moom kooke di Adji Sarr te nekkoon fi rek amoon fi problème ak ki xamante ne si modi koke du di Ousmane Sonko ba taxoon rek ay bakkan si rot ay nit yu bëri am si gaañu gaañu yu bëree bëri xewoon fii ay manifestation yu jeex daat si amoon takkoon lol koke di Adji Sarr nag jamono jile ñuy wax naan ma nga sa France wala ma nga sa Canada waaye nag ak lu si maanaam daal moom ma ngay bëgg a dund di bëgg a vie bi nga ne na si ay jafe-jafe fi si Sénégal mënul woon a fenn mënul woon dem fenn moom kookee di Adji Raby Sarr ginnaaw ba nag ba mbir mu daal di nag ñolax li ba sa réewum bitim réew fas yéene rek changé euh, dund beneen euh, dund ndax loolee dina continuer wala du continuer lu si mën a am diggante moom ak kooku di Ousmane Sonko soo moytuwulee Eh, mbirum dossier bi wala mbirum projet boobee danañ ko rek eh, leeralaat ba mu leer naa ñi daal koy teg ci taabu gi eh, a xam rek kan moo def ak kan moo deful ndax kookee rek di premier ministre ba Ousmane sunko di wax na rek jamono ji si ak jubbanti salam nekk te lu bëri bëri danañ ko xoolaat tegaat si dossier jëm si wàllum justice bi ndax na lépp rek danañ ko war a balewaat ndax si démb yooyu la kàddu mu yëkkati ko si nag ba ni lancé rek lu jëm si wàllum set si dëkk bi moom kookee Sonko yëkkati sa kàddu yu mel noonu xam na rek jamono ji daal setal euh, salan nekk te loole sax danañ ko def si euh, pàcc yi bëree bëri moo xam si suuf bi ak yeneen fànn yëpp rek danañ sa amul ko set setal ndax bala na jublu euh, si leneen mbir yooyu xamante ne si daat na yomb lool pour leeral ko muy jëm si dossier yi nga amon seen rek amoon na fi ba pare ami rëq-rëq ñun ñu bëree bëri am si gaañu gaañu am ñi si ñàkk seen bakkan yooyu la dossier jamono ji eh, bëgg nañ kaa tegaa rek si table gi ba mu ba xam kan ak kan def wala kan ak kan la si loxo mu duggam mu doon mbir xamante ne si ne nag eh, Sénégal yi dañ leen yittal la ndax kookee di Adji Raby Sarr am na lu am ñoo xamante ne si ne rek def ndax lu manifestation na na ndaw ñi di manifester